waaw di sant yàlla nag euh, ci li xew tey mooy li war a am mooy ñëw assemblée ànd ceeg euh, suñu collaborateur du ministère de sports député yi nag ñoo waroon a càmbar voté li nga xamante mooy suñu budget mu toll ci ñaar fukki milliards ak ñett ak lu tegal daanaka budget bi yokk na milliards ak lu tegal lu am solo la waaye jàngat bi ñu ciy def mooy budget bi li muy rëy yëpp dafa am ñaari pàcc yoo xamante ne am na ci solo mooy wàllu tàggat bi ñuy tàggat nit ñi wàllu jël en charge les compétitions internationales waaye wàllu defar ak ñab defaraat ak tabax stade wala infrastructure yu bees booy xool budget bi lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaar ci budget bi boo ko xaymaa ci téeméer boo jël ci wàllu defar stade la entretenir stade loolu nag day méngoog jafe-jafe yi Sénégal dajal jànkonteel ci manque d'infrastructure sportive loolu defe naa ne saafara la ku ko gis budget bi di nga xam yéene président de la République yéene gouvernement du Sénégal ci répondre positivement ci préoccupation yooyu nga xam ne moom moo dal ci ci Sénégal bi ñu fi jógee nag wax nañ ci lu am solo parce que question yi gën a bari tey wàllu euh, violence bi nga xam ne moo am ci suñu infrastructure sportive yi la ñu wax ci nag ne dañu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di ko condamner fermement waaye it di jàlle ñi nga xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan di seen i seen di leen ñaanal yàlla yàlla xare leen ajana waaye di jàlle it mbokk yi ñu gaañu ñu ñaanal wër waaye yëf yi mënuñu ko yemale rek ci wàllu tàggat yaram tàggat yaram dana dajale nit ñu bari bu xeex amee mënuñu ci génn waaye duñu ko yenn rek waa tàggat yaram parce que li xew ci Sénégal ci wax ju dëgër ji wax ju ñaaw ji jëf ji nga xam ne mooy agression yi loolu du wàllu tàggat yaram kese mbir la moo xamante ne képp kuy sénégalais interpellé nañ te ñiy dem stade ci kër la ñuy jóge ñii seetaani am nañuy wayjur ñu ñu ñu yar leen defe naa ne war nañoo gën a renforcer yar gi ba nga xamante ne kii dem di seetaani làmb wala muy seetaani football wala muy seetaani judo xol bu neex lay wuti dafay dem pour bégal boppam dafay dem it faral nit waaye du fa indi ay te bu ñu ko tooñee sax dafa war a baale defe naa ne loolu la ñu war a wax parce que tey du fépp la nit ñi di xeex du fépp la nit ñi di indi jéyee boo demee ci suñu village yi amul policier amul gendarme te deneen nawetaan ba mu jeex doo dégg xeex doo dégg xuloo ku gañee da ngay ànd ak ñi ñu gañee ngeen di woy di ñibbi defe naa ne loolu aussi jàngat la boo xamante ne bu ñu ko boolee ak li xew ak ñi ci bokk yëpp war nañoo mën a andi yeneen i solution yoo xam ne dina gunge autorité yi pour ñu mën a juguler li nga xam ne moom mooy ay ak violence bi nekk ci infrastructure ci suñu compétition yi waaw ci infrastructure yi defe naa ne Sénégal moom euh, am na lu fi manqué woon waaye jéego yi am na solo moom laa wax ci wàllu budget bi boo xoolee li ñu tibb jagle ko infrastructure yi war nga xam ne Sénégal fii ñu jëm nii ëpp sportif lay doon boo jógee fale ci aéroport ba jaar jam ñaajo rek di nga xam ne njiiti réew mi jox na gëdd li nga xam ne mooy tàggat yaram loolu ñu tabaxagum nag bu ñu ko booleeg Demba Diop bi waaj a commencé FIFA war a joxe xaalis bi loolu rek a ci des pour ñu démarrer entreprise bi war a def réhabilitation Léopold Senghor Elimanel Fall bu Diourbel Lamine Gueye bu Kaolack Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor entreprise bi nga xam ne moo ko gagné mu ngi ci réew mi li ci des mooy xaar ñeneen ingénieurs yi ñëw ñu démarré dem nañ ba xool camp bi fi ñu ko war a def mooy fi ñuy def seen base loolu yëpp ànd nañ ceeg service yi ba identifier ko defe naa loolu lépp bu yembee am na jafe-jafe yu bari yoo xamante ne doon nañ ko ci am ci wàllu tàggat yaram fu ñu ko defee dina saafara. kañ lay tàmbali. ci début d'année bi rek at mi buy commencé incha allahu rabbi bu fekkee ne ñoom ñi ñuy xaar yegg si nañ rek dinañu ko lancé loolu du nekk lu nëbbu yéen di ngeen ko yëg yéen ñi taskati xabaar yi bu soobee